loolu ñun ñooy seet. ku dàq ku dàq togg. waaw. right. ah. Mortala Fall Sandaga séeri luy loolu. yàlla teg na ci ñetti peeru dàll yoo xam ne tronique. waaw ak ba ballerine. waaw ak ay talon. ah. ok <laughs> I love that baa ngay bëgg a kii. Fallou Fall alraxam nee luy loolu. un mois cuuraay. Oh, ndaw nekk bu xeeñ xeeti neex neex yi sa biir kër yëpp moom Fallou Fall joxe na luy loolu. Mm. omelette bokk ci omelette. déglu rek maa ngi ñëw de da <laughs> nga de nga xool ci ñaari hôtel yi King Fahd Palace. Mm. wala teeru bi. Oh. wala Pullman. waa loolu togg rek. ñu yóbbu fa nga weekend. <laughs> togg gaa ngay bëgg ak président Ziri bi bu la neexee. ak président Ziri bi <laughs> président Ziri baa ngi nii. bu la neexee sa weekend nga jàpp ko hôtel bu la neex ak président Zéry ak ki topp ci président Zéry bi. I will love it. <laughs> ak <laughs> maam daan maa ngi lay ziar baax. maa ngi lay ziar doom day. Mm, yaa jàmm ndax. waaw di la sant di la wax ne la yàlla yàlla dafa la jàmm. amiin yaa rabbi yow dama lay wax ne la saa su nekk rek dama lay. ñaanal billaahi ah nit ku baax ku yàlla baaxal. ku baax la. tam naa la nga daan def di nga ko def tey. Mm. ndax tey jii soxla naa ko mhm. tey foo nga yëkki dara jox ma mhm. ndax euh, euh, njëgu taxi moom tey foo nga jox fan yëpp dama lay daa ah, damay euh, jàmm sant bu may dem damay bàyyi ah, lii mais dooma wax dara noonu laay ñibbee waaye tey moom daa faw ñu gisee lii da laa gëm moom waaw yàlla na yàlla dafa la jàmm kaas kaasal sa bopp booy laaj laajal sa bopp waaw booy xeex xeexal sa bopp lii daal moom bëgg nga mujjee moom moom gën a li nga njëkkee fuufaay waaw de li ma jëf li fi nekk bu dee daa bariwul noonu. <laughs> da nga da ngay da ngay am fuloo mais laaj laajaaleel. laajaaleel sax loolu man laajaaleel ma la loolu da war. waaw <laughs> waaw mais may nuyu waa Caaray. di nuyu waa Yëmbal. Mhm. di wax comme ni ko ubbee euh, léegi nii émission bi doon na émission boo xamee fi mu toll ñun ñëpp dañ ciy bàyyi xel. wallaahi su may ñëw dan may woo ndax dina am. Euh, ñëpp di toog di seen i salon di ko di ko xaar. SRS euh, bi moo mhm. bari. aba réew mi dafa bëri stress te ñi may woo sama téléphone bi di la ñaanal di nu mm-hmm. ñaanal dafa bari mm-hmm. ñuy gërëm ñëpp di leen sant di wax na yàlla yàlla dafa leen jàmm waaw ay weñ la waaye nanu way doogaan nanu way doogaan rek awa gay eh, les mercredis ak awa gay ak Fanta Samira Koulibaly ndeysaan ah, Samira li ko dal dal mënuñu ko wax fii ci plateau bi quand ah, yàlla na doon jàmm rek di teggin man dinaa wax nag ah. démb cere baase moom cere tey mu xëy. ndekkee mburoog nambe. ah. añee maafe. ah woo. ñu fa feebar ba dëgg yàlla loolu dal moom def lu ko ah loolu moom kër Poutine la yoroon. loolu moom yaa nga kër Poutine moom. loolu moom bu ay bomb jugee. loolu moom du. waaw waaw waaw. munoo réeree waaw. cere baase. waaw. suba. waaw. ndekkee nambe. waaw def ci mayonnaise. ah am na ma am nii ne. mayonnaise gi la añee maafe. ah nee na maafe kànje. waaw woo ma ne ma allo waa doom yaay damaa feebar waaw feebaroo. Ah, waaw ma nga kër Poutine ma nga kër Poutine. yaa ngi kër Poutine yaa ngi ca guerre ba ratat tat tat Russie dina gaañ Ukraine waay Samira Koulibaly attel xeex bi ah, Samira Koulibaly attel xeex bi salaamaaleykum aw gay xanaa ba mu tam. yaa ngi am jàmm na xanaa xamu na ñu ñàkk sutura la ko seqaloon. wallaahi non moom mën naa bañ a woote mën naa toog rek dama am empêchement. mais bul expliquer li nga reeree démb. li nga ndékkee tay ak li nga añee. dañuy xam ni yaa ngi kër Poutine. dañuy xam ni yaa ngi kër Poutine. loolu moom yaa kër Poutine kenn ku ko mën a sauver. sauver instant bi kër Poutine Poutine. pare mi ngi jaabante. yaa ngi kër Poutine ah, écrin risi écrin risi écrin risi <laughs> waaw boo demee fii tiire boo ñëwee fii noppalu xam nga waa Ukraine du ñu mën a oh dóor waa Russie ah? ci Russie lay noppali ko bu demee Ukraine ci lay tiire ma nga feebar dafa ah, Awa Gueye ñu ngi lay nuyu Euh, maa ngi lay fay Aba euh, di la nuyu di nuyu euh, Mamran it's a pleasure to be back comme ni ko Aba waxee rek chaque mercredi ak ñun mbégte la contentement la because dañuy ñëw ànd ak yéen waaye comme ñu ni kese ni ñuy gisee rek dafa neex neexaay boobu noonu li leen di joxaat baax tu yéen ñi nga xamante ne yéen a ñuy seetaan di leen bëggee bu baax a baax mais bëggee bu baax a baax a baax Aba sama waa Gambian people sama mbokk Gambian. suñu waaw ok. suñu mbokk Gambien si waaw euh, of course Aba is a Gambian too Mamaran aussi is a Gambian too euh, ndaxte Sénégambien bi euh, loolu loo xamante ne la ñun ñëpp ñu ngi koy dëggal ba tax na xam nga rek ak li ñuy waajal ak yooyu waaye loolu ci kanam tuuti lañ ciy dem xam naa Aba. loolu ci kanam tuuti. right so noonu laay nuyoo. Mm-hmm. waa Gambian people. Mm-hmm. di leen wax xeloo te nga xool sa kanam. Mm-hmm. maa ngi jégalu maa ngi jégalu maa gis suba ba tey nga teg big di bind. waaw may laajte ndax da ngaa bokk fii am natt wala dafa am ko wala teggil. loolu ma jóg may def xaalis ko waa ma jóg tey ñaata ki mu ne ko ah bariwul 60 personnes. ak <laughs> ñu war a nuyu ci plateau bi <laughs> yàlla na jàmmam yàgg maa ngi koy wax ay mercredi bu amoon temps mu jaar waaye xam naa ma nga ca yeneen. fàtte nañu. waaw fekk na ma ca ma ca Daaru Musti sigil ma ci kanamu sëñ bi nag. wax fa ay wax yu fort. ma ko déglu. kookoy ma taxaw wax fa ay wax yu fort. kookoy ma jóg nit ku baax rek mën loolu. Mm-hmm. waaw yow mm-hmm. waaw lu wax ci yow rek. nit ku baax rek moo loolu. lu wax ci yow Aba. Mm-hmm. dafa nekk ci yow. man dama lay ñaanal yàlla defal la jàmm. waxuma la dara mais bëgg nga bëgg sama sama waa ji. sama cofeel bi ma am ci moom saa su ne. Euh, maam Thierno waaw loolu rek ak coono bi nga ciy daj. waaw ah. waaw rajo di la ñaanal yàlla defal la jàmm. ñu nekk ci sama nopp bi naan ma maam raan tey de la diw bi amul paas. paas la amul tey. waaw waaw baax na baax na waaw baax na baax na amul benn problème. ah ñoom Khadija Diouf am na giir goo xam ne su ma ko woowoon léegi. mu am nu mu def. ma bokk ak yow. aller retour 10 000 laay def. neel mooy borom Everest finance. waaw borom Everest finance. Khadija Diouf Khadija Diouf. Boursinay maamam. Boursin yaa mooy sa mam. baaxkat bu mag bi baaxkat bu mat bi. femme d'affaires bu mag bi waaw doo xool ba xam nga ne la. arbitre bi bu mag bi. waaw waaw wax ko ko. la ah, waaw waaw baax na ku baax la. ku baax ku mën lu baax yaa ko wax ku baax la. amoo paas. Ah, ah. ñu woo Khadija Diouf borom Everest finance mu jàpp ci sa ñàkk paas gi nga naan ma bippe ko mu ngi seetaan. ah waa ñoom waa ki ki dem. Euh, kii dem waay euh, ñoom ah, ñoom Papa Dem. Ah. Euh, Papa Dem général couture maa ngi lay kontaane bu baax ak waa atelier général couture bi yëpp. maa ngi leen di bëggee bu baax. suñu ay partenaire la moom mi Awa gay di tàngal bëggee. Uh-huh. indi jinjeer. Ah. Awa Gueye tàngal jinjeer. I love bëggee. and I love ginger inside the bëggee. yow love loolu kese de yow love leneen. waaw yow love yoo xam ni man xam naa ko tarkal la yow boo loovee tàngal bëggee. loof bëggee ne ay loof bëggee. waaw olof moo ni bëggee. Ah, des na yeneen. loof jinjeer jinjeer ci biir bëggee. waaw kon yow am na leneen loo loof loo ñu waxul kon yow. ma kon lépp a ngi ci biir bëggee. lépp ngi ci biir bëggee. Ah, waaw ah, ok bi ñëw. ah du ñàkk mu log ah jinjeer ndax ni muy waxee wala jinjeer da kay def. da leen ma ay waaw loolu noonu est-ce que doo logaale jinjeer booy ñëw. est-ce que xam nga est-ce xam nga day présenté benn soirée. muy am ce samedi. waaw ca teeru bi moom bokk na ci ñuy organiser moom mi bokk na ci ñuy organiser bokk na ci ñuy présenter li ma ko dégg mu ne moom lay teg ci kaw table bu ne waaw dafa jar ku ne dem wuti sa table balaa table yee jeex ah, Assane Ndiaye mooy joué mm-hmm. ak Kéba Seck mm. Raf Prod ñoo ko tëgg table yi bu ñu ko organiser ba pare am na surprise yoo xam ne ñu ngi ci kaw table yi mën ngaa fay sa billet surprise bi fayaat la sa billet fayaat ki nga àndal si fay la sax sa table ah, eh, yu doy waar yoo xam ne ca teeru bi loo ci xamul nag man maay teg lépp. dégg li waaw am ni ma koy tegee. gam bi xam nga tegin dafa am solo. waaw waaw xam nga soo nee salaamaaleykum. waaw maaleykum salaam dafa am noo koy waxee. waaw su ma nee salaamaaleykum nga ne maaleykum salaam xam nga a waxee mais soo ma nee am ni ma la ko waxee. dangay dëkk naan ma salaamaaleykum. salaam salaam bu dul dee. kenn du lekk da nga koy sentir. yaa ngi koy yëg. Aboulaye euh, dañu dem balaa ñu ñëw suñu ay partenaire euh, am nañ ki nga xam ni mooy euh, li tere ñëpp dëbb li tere dang-dang yi tere jigéen ñëpp sonn tax jigéen ñëpp di sawar a togg heure boo wàccee boo ñëwee togg togg bu gaaw 30 minutes nga togg plat bu mën a doon mm-hmm. amoo looy dëbb mm-hmm. amoo looy wali amoo looy def lépp dañ la ko defaral ci ay paquet waa ba bara musu ñu ko indi ita keye ita koye waaw ita waa ñu yeeka koyee Abdoulaye boo ñu may clip rek ñu xooli ko te ñëwaat léegi song suñu ay partenaire daal di waxal leen seeni i xeeti baax baax ay ci Abdoulaye ñu ngi waajal euh, ñun ñëpp nag euh, ñu ngi waajal événement yi nga xam ne tabarkaal dafa war a am ci réew mi waaye événement yi nga xam ne am ci biti réew yaakaar naa ni euh, fi ñu toll nii Abdoulaye ci kanam naa laaj benn image affiche nga tegal ma ko lee xew la 18 juin foofu nga xam ni moom mooy ca France ñëpp xam nañ ni dañuy ànd ak Youssou ma jigéen fi nga xam ni moom mooy ca France ca Bercy ba passeport yi commencé naa ñëw maa ngi gis ñu bari di yóbbu seen passeport. mais maam daan gisaguma fa sa passeport. xaw ma ndax am nga passeport am déet. Ah, mais fi ñu toll nii waaw waaw ah, waaw. waaw bàyyi ma xaar leen rek affaire yaa ngi avancé. e ma xaar leen rek passeport yaa ngi dem ah kon waaw. incha allah dama sa pointure rek kon. déet waaw booy nga bëgg. Euh, bu may yóbbu ah, yow ay pointure nga may ah nga ma yéene. léegi ko mënoo dem. doon yow nii nga nar a nekk ak man. yow daal waaw lan nga bëgg boo mënul dem dañ koy fomm annulé ko. déedéet kenn du ko fomm sax waaye na nga jéem a ñaan nu ma demee Aba yow lan Aba yow Sénégal nga may ah, a nga nga bëgg a ànd ak man na maam daan dem ñu ne ok na dem yow nga toog nag. sama bopp man la gën a du bañ naa la di. non du bañ naa la. waaw mais te nga jëm ñaan yàlla ñu ànd ak sama bos kenn laa jëg quoi moo tax ma ciy wax nii pour xam ni xam naa ni passeport yaa ngi dem yëg naa ni ñu ngi laaj passeport. ah ñu ngi laaj ah, ah, ah ngi laaj. Paate ak Cissé. waaw. ak Julde. Mm. ak madame Sarr. Mm. ñoo yor mission boobu. Ah. an imile lay woo mais an bu la wooyee ba nopp bu coupé. waaw ñee ñoo lay woo. waaw Paate ñoom miinuñu ma. Cissé. ah ñoom miinuñu ma. madame Sarr ak Julde. ñoo yor affaire passeport yi pour yéen ñu ñu woowagul te ngeen nekk groupe Futurs Médias ah envoie ak Oumy Ndiaye madame Ba madame Ba waaw kay secrétaire général waa léegi yéen ñu ñu woowagul comme man waaw ak man envoyé leen SMS ngeen seet leen rek bu leen wax nag ni affaire Bercy ak raan nee leen ci ngeen nekk rek gëj naa la gis ak yooyu <laughs> envoyé leen SMS rek nuyoo nuyoo leen Awa Gaye yow laajaguñ la man no no one asked yow yow laajagul waaw yow noonu ñun xam ba may daa kon ñun suñu plateau kon ñun lañ laajagul ñun laaj ah, man day def ma sama xel waaw Cheikh de passeport am dem na bu yàgg daa dem yow sama demaw laajaguñ <laughs> lii laaj jooy laajaguñ ma de man bàyyi ma woo waaye lenn dafa am aba mm, mm. mooy yow boo demulee je pense pas que Super Étoile kenn dem man mi waaw ah, trust me ah. ok oui ba pare li xewoon arena faaw ñun ñu mat nag am fuñu fullaay bopp mm-hmm. bind suñu lettre mm-hmm. xaw ma yuusu lañ koy jox xaw ma kan lañ koy jox mm-hmm. yuusu mm. bi muy joué fii place du souvenir dañ fa demoon def seetu bi dëgg bi muy joué arena dañ fa demoon def seetu bi Youssou buy joué CICES. waaw day jël équipe seetu bi. ñu dem def seetu bi. waaw te émission émission la rek. concert concert la. benn nit bee koy way. waaw orchestre bee koy tëgg. ah ñoom de benn la ambiance benn la. la rek. dëkk yi ñun suñu yoon ñun suñu yoon néew ci ay dëkk. waaw wala dëkk waaw suñu yoon néew niñ daan defee émission yi di ko jël di ko yóbbu. waaw di ko tuxal. waaw naan événement bii am na émission bi foofu lay amee. foofu la war a am fexe leen ba événement bii am. waaw émission bi amee ko foofu. léegi le grand bal de Paris. waaw waaye nag du waa France rek ko moom. Awa Gaye. waa Amérique ñu ngi koy waajal. waa Europe bu ma nee Europe bàyyiwuma Espagne. Angleterre bàyyiwuma Angleterre. Allemagne bàyyiwuma Allemagne. bàyyiwuma Sweden. ñëpp yow dafi Gambie yaay nekk rek nga lim ne. waaw ah, waaw sa bopp de. ah baby you know ah, ndaxte Gambien si. Mhm. kenn ci lu ñu dañuy jiitu dem toog. déedéet te man xam naa ñu bari ñoo xamante ne right now jënd nañ li xamante ni mooy seen i ay billets. yaa ngi ah, dem comme des petits pains. nan lañ koy waxee ci anglais euh, Sweden. Sweden Sweden. Allemagne. Uh, Germany Germany. Belgique. Belgium. Espagne. Spain Italie. Ah, Italy. France. <laughs> France. Ah. Ah, yak eh, eh, kii foofu la woon Angleterre. England waaw waaw. <laughs> Eh, ñoom ñëpp a ngi waajal. Youssou Ndour ak les super étoiles de Dakar plus. ay invité. yes invité yi. lan bu la ci gën a seen bopp def lañ seen bopp rek. encas yi plus ay invité di nga di nga invité. def ci sa bopp neel xool ma nee plus. da ngay def tur bu la neex. plus maam ran léegi. beneen bi yow la ah ah yow yow la laaj wax. ayca le grand bal samedi 18 juin wax nañ ne à partir de 19h France nag. waaw seen i heure day teel. waaw dañuy teel a commencé. waaw. bersi bi teel a xumb. waaw mu teel a neex teel rek. Youssou teel a tas am na lu la daloon fee. dee nag Youssou teel a jeexal. waaw après ñun dañ daan def ay after party. waaw bersi bu teel a jeex. dañu def suñu after party. ndeysaan ñam ci benn boîte bu ndaw. waaw bu ñu paree fa ñuy dem. ndeysaan jënd suñu biteel def. léegi accord arena lay xewee ca Bercy yaakaar naa ni fiñ toll nii adduna yëpp a koy waajal waaw euh, bu dee foofu am na son bu Bercy bi waaw wala mu am clip ki nekk am Amérique ngi ni waaw waaw kii lay maxtaar lay ah. ah, moo ubbi ah, télé bi ah the outstanding photographer the best the outstanding one the best one one of the best one ah déet buñ ne the best one ñeneen ñi fa ñiñ daan photo nag the best two the best three <laughs> waaw def àdduna am ku jël prix am ku jël déedéet ak ak ku jël. Ah, waaw the best two the best three the best four. <laughs> waaw ay caaflaay loo ñu may ñu jël may ñu clip bu la neex wala nga may ñu la neex avant ñuy ñëw eh, ci partenaire yi xam naa ne tey partenaire seen xol sedd na. dañuy waaj a ñëw bay waaj a ñëw ci ñoom. waaw daal di arrière ne ah. ñu ngi ñëwaat. waa Baramusu waa tàngal bégee jinjeer. ñu ngi ñëwaat ñu ngi ñëwaat Abdoulaye yàgg na Fan si de blesse na moom lii Super Daddy Music man ki wala moo ngi ni te nga wane ko bëri jaañ mën a sañ si wane xooleen ko mën a tër di ngeen teg ci neexi reetaan maa ko loo amu ci yow sago on ndeysaan oh, girl man ki ma love a ngi nii hey bye wan ñu ko moo ngi nii feeling bad dem is am na ma doomu aadama bi tàlleen ko doole yamul man mi duma may dara del yor sa xiit di cawe nasiiba fees naa sama palaas dama xëccoo duma may dara bul mayee dara caw nasiiba sooy war yow fi lañ paañool am na fi fu la day jaay grossiste ma songo benn xale bul ma takkal ba joo ba joo li nga doon jaay tey mu la xol bi di ko ritambale xool ko moo ngi nii oh, insomni la jaxase xel bi xool ko moo ngi nii oh, man ma looba ngi ma koy xool di bee su ma ko gisee doxa naka lay def sama xol doole yemul man mi duma maye dara fees naa sama place du ma xëccoo du ma mayee dara bul mayee dara caw da sii ba sooy wër ya fi liñ faa ñëwal am na fi fu la day jaay bërsiste la laay am na man du ma songo kenn xale pour ma takkal bojo bojo li nga doon jaay tey mu la mu waay ñëwal ñëwal ma mosal la doole man bari doole Euh, am na solo euh, tabarkalla waa Gambie euh, ñu ngi leen di invité bu baax ñu ngi leen di xaar yaakaar naa ne ñu ngi ñëw par kenn kenn fi nga xam ni moom mooy ci capital bi ndax bu samedi soirée bi ñoom ñëw ko moom Raf Prod def Assane Ndiaye xam nañ ko ak waa Gambie def Kéba Seck xam nañ ko ak waa Gambie waaye tarkal la jël doomu Gambie euh, invité leen jël ay doomu Gambie ñu war ko présenté ay doomi Gambie ñu war leen faa jox ay raaya ak ay diplôme vraiment mu nekk lu extraordinaire aw gay right aba noonu rek laay def euh, invite ki nga xamante ni moo représente Gambie fii nii euh, koo xamante ni moom la Adama Barrow wóolu mhm. bëgg ko tànn ko pour mu ñëw représente ya fii nii Sénégal di His Excellency Hadrami Sidibé ñu ngi lay woo nga ñëw rek jënd ay table su ko defee ñun ñëpp ñu daal di toog noonu it it's more of uh, uh, retrouvaille la uh, pour ñun ñëpp ñi nga xamante ne nekkuñu fi ñu daal di ñëw ñu daal di daje ñu daal di waxtaan noonu rek ma daal di woo Adja Tambidou dama ko ni présenté ma ambassadeur bi mat na 3 mois. ma topp ko présenté ma ambassadeur bi. fa lay ndogoo weeru koor bu ne chaque jour dafay dem ndogu kër ambassadeur. ah xam nga ne ndogul ambassade awa kay présenté ma ambassadeur bi. ah ndogul ambassade waaw léegi. Ah, ambassadeur bi incha allah le 26 bu ñëwee ma téye sa loxo. téye ci loxo ambassadeur. léegi li ma waroon a teg man si table ambassadeur. Ah. ma jox la ko nga teg ko. Ah, yaa ngi doon woote. eggali <laughs> waaw woo euh, Adja Tamba Diang moom tamit macha allah ñëpp xam nañ ko moo nekk euh, euh, doomu the former vice president of the Gambia moom tam mu nekk fii nii Dakar di fi liggéey liggéey bu am solo macha allah xale boo xamante ne ñun ñëpp dañu am fierté pour moom eh, si moom raada eh, ma koy oo ak ñi mu àndal ñëpp aba maa ngi woo bépp Gambien bu nekk Sénégal Abbas ci turam bu nekk fële boo woowul Abbas ci turam Abbas Jaaju woo Abbas ay ay ay ay Ayda bàyyee naa la Abbas kenn du moom Chéri Fatou chéri Thielel chéri Aïda Samb borom Gambia borom Sénégal ah. doom yaayu Mbaye Gueye Faye eh doom yaayu Youssou Madjigi Abbas baaxkat bi di mag ci Awa Gaye di mag ci Abba mi nekk nit koo xam ni dafa sociable ah. nit ku bëgg lu baax nit kuy def lu baax ay jibi yàlla sa jàmm yàgg de first one photographe yàlla na jàmmam yàgg Abbas ñu ngi lay woo the outstanding outstanding. outstanding. waaw out. tuuti. the outstanding. Ah, the outstanding photograph. the outstanding photograph waaw. ndeysaan loolu day wax wax dëgg yàlla ah, ah, foofu nga tolloog ñun léegi dañuy jàngal ay outstanding. waaw métti na ok lan la. <laughs> waaw waaw Aba. waaw boo génnee damay duggat ndax man mii nekkoon naa Gàmbi. Mhm. ñuy woo waa Bakaw. ki Amina la foon. waaw def naa fa lépp. Amina mhm. waaw. waaw dem naa fa jaay naa fa ambulant mu dem ba Gambie ambulance waaw man ambulance ñëw di ambulance waaw ah, de ngay grossiste ambulance eh, yow fii nga fee def dara yow anguro nga jëlee fii bàyyi ah, taxawaayu lépp a lépp lépp day naaw ba dal <laughs> waa Bakaaw am na lépp ñu dalan nga sama kaw dalaatal sa <laughs> oo waa Bakaaw waa Birkama ah Ah, waa Tànja waa Bijulo Tànja ah maa ngi lay wax foo xamee dama faa dem dama faa miin ñëwal ñëwal Tànja googu fa laa daan jaayee hmm. mbaxana yi velours yi fi amoon oh, moom laa daan ambulance waa Jackson bi waa Jackson waaw Jackson Johnson Johnson waaw Johnson. xam naa Gambia eh, la ah, biir Kaamas Rasulullah Tontebu. Hmm. ñooñu ñëpp ñu ngi leen di woo. Hmm. tey bu ma nee waa Bakaaw Bakaaw fa laa nekkoon. Eh, Tànja laa doon jaay jee waaye Bakaaw laa doon finance yi. Ah, ñu doon ay nit ñu baax. foo ñu baax abaa gam bi dama fa dem mhm. ñu teral ma Euh, jàppe ma comme seen doom mhm. kër gi ma nekkoon bu ma daan ñibbi xale yi dañuy jooy daawunu bëgg sax ma ñibbi yàlla xam na ko ñu doon ay nit ñu baax nag mhm. ma leen nuyu ñoom ñëpp di leen mhm. jaajëfal ñu préparé nag événement bi na ñëpp ñëw Abdoulaye étape par étape la bu ñu laajee benn événement événement boobu kese moom nga ñuy jox boo ñëwaatee nu yeggali dem ci beneen événement soo ko dem ci partenaires yi soo ko wax li nga xam ni moom mooy li nga xam ni moo fi am lépp lépp lépp lépp lépp donc nañu dem ci événement bi am le 26 foofu ca teeru bi Keba Seck ak Assane Ndiaye Raf Prod moo ko tëgg Awa Gaye ak man mi toog

première partie ba ñu ne Kéba Seck ay yow lii nar na neex di première partie Kéba Seck ah ban pays mooy pays invité ñu ne la Gambie. Gambian people bugguma kenn des gannaaw I want everyone to come on board Assane and the Gewel gi band of course ak Kéba Seck waaye nag li nga xamante ne mooy waa Raf Prod ñoo ñu indil this night is going to be a spectacular night a night full of surprises of course and a beautiful night boo xamante ne is the Senegambian night Assane Ndiaye and the Gewel band. xam naa ne Gambian si buñ fëlësee sañse macha allah red carpet is going to be there for you guys maa ngi oo everybody képp koo xamante ne yaa ngi Gambia surtout sama waa biir Tamba xam nga Assane daf ñoo beral loxo bëgg naa ñëpp ñu daal di ñëw. attention ce 26 mars du yomb réservé leen ci 78 592 42 54 ci 78 592 42 54. you can contact us on plus 221 78 592 42 54. du ma leen dara Assane Ndiaye ngéwél gi ak waa Rafet. le 26 mars teeru bi dina neex. le 26 mars ca teeru bi ah euh, ndaw lu nara neex donc euh, woote leen gaaw ngeen jël seen ay billets euh, te xam ni yéexati ñàkk rek lay doon rombati réccu la donc ku yéex rek xamal ni yaa ko xañ sa bopp nañu dem ci partenaire bi nga xam ni moo neexal wàññi fi ñu toll ni tax nañu ku buggul woon ak ku mënul woon togg mhm. ñëpp a ngi bu waxante di xëccoo biir wàññ bi dañuy ñëw comme Aba ni nga ko waxee rek Baara Mousso Baara Mousso mooy the the chosen wife mooy sa sa jabar bi la gën a neex ki la neex ci say jabar daal bu dee mm. ñaar nga am moo la neex bu dee euh, benn nga am kooku moo la ci gënal ba tax na euh, baara mosoo indil ñu li nga xamante ni mooy ganaar ndaxte ñëpp xam nañ ne euh, ganaar dafa sicc dafa naqaree jox guu benn benn guu boo xam ne dafay tem-temi mm-hmm. so baara su indil ñu defal ñu spécial powder boo xamante da ngay tibb rek daal di marine sa ganaar mu jox ko ak different color flavor boo xamante ni macha allah waaye ku ne ganaar di nga ne jën moo tax na nag ñu daal di ñu indil li nga xam ne tamit mooy fish fish powder lañ ko tuddee pour poudre poisson euh, dañ ko indi pour euh, pour pour rek affaire jën tamit abaa xam nga ne jën tamit dafa sicc mhm. xam nga rek euh, te te booy togg il faut mu am benn set ak cell ba at the same time mu am benn goût boo xamante ni dina ci nekk loolu doyul Mame Rane ñu daal di ñu indi li nga xamante ni mooy euh, poobar indil ñu euh, bépp xeet boo bépp poudre boo xamante ne dañ koy soxla suñu ay waañ bañ rek ñuy dëbb parce que léegi nit ñaa ngi dëkk ci appartement yi xat na euh, doo nekk di dëbb di kënkëng di sonal nit ñi xam nga di fatt nit ñi soo dëkkee ku mel ni abaa mu jékki-jékki nekk ci suuf di la yuuxu ci kaw lay def nii ak yow wala exactly kii dëbb kan la te dëkkandoor ah moom day dëbb rek waaw te dëkkandoor dañ lay wax naa na nga moytu àqu dëkkandoor mm-hmm. donc ñoom dañ ñëw pour wàññil nit ñi di àqu dëkkandoor moo tax na daal di ñu indi products yi euh, leneen lu ci gën a kii na boutique boo dem di fa fekk sachet yii nii da ngay daal di xëcc rek daal di sotti mu daal di neex te xam nga ne benn sachet bi nii rek doy na si lépp loo mun ci togg nag mm-hmm. benn sachet bi doy na bu dee ay xew la ay mbana wala nga bëgg mu yàgg da bëgg di jënd groceries bu bari this is it exactly mi ngi nii daal maam raan xam naa booy dem rek mu di biisaat si mbaxal bi waaw ndeysaan ngi noonu xam nga euh, euh, ni ko waxee mm-hmm. mooy que ne Bara Moussa ñëwul ci réew mi rek pour di wàññi dara ci réew mi dafa ñëw pour yokk dara ci réew mi mm-hmm. waaw ah, ndax lii bokk na ci liy yokk ci réew mi dara ndax fi mu toll nii kenn talatul dara léegi nag dafa wàññi ah, dafa dafa dafa yombalal nit ñi lépp li nga xamante ne ni tey jii mooy mooy seen wàññ parce que bu ñu demee ba nga xamante ne poobar lépp ñu def ko kaani lépp ñu def ko ci ay ay kii wax dëgg yàlla koor gi nu jëm mm. ah xanaa war na noo teel a ndogu laa xanaa war na noo teel a ndogu mm. abaa xanaa fii ah, allahuma lakasum lépp yomb na de waaw ba a kaa man voilà res yi testar lii moo bala moo daanu bu la neexee xanaa war ngaa mën a la neexee bu imaam bi naan allahuma lakasum ko de bari kaama wala rasi a tasarli maa xadam tuba maa <laughs> xadam bismillah dog jot na moo gën a yomb de ah bismillah dog jot na ci Ndakaar ak li ko wër ak li ko wër yee gën a yomb mën naa bañ a nak rek joxe saar bu indi aaya <laughs> ay a loolu du ak sa daaw daa def erreur bu mag ci animation man yow mi waaw waaw loolu la weeru koor gee ñëw man may animé Met Shop sama xarit bi maa ngi lay kontaane bu baax l' international Met Shop mooy borom appartement meublé yu ne mooti yàlla sa jàmm yàgg mag bu bëgg sutura day làqatu rek wal met sob yàlla sa jàmm yàgg léegi may anime bi may anime comme weeru koor lañ nekk ma ne xaaral ma anime ay soowu arab au lieu ma teg son bi te noppi ma teg son bi naan ndeysaan ñu ngi waxtaan lu doy waar ci diine parce que ci weeru koor lañ nekk waaj naan yaa tap tap yaa tap tap ah, ndeke wayu mbëggeel la ma naan xoolal diine naan naan naan déglu leen weeru koor lañ nekk ndeke waa ji mu ngi naan yaa tap tap te yaa wolof boo ko déggee yaa tap tap xam ni mu ñaar ñu bëggante la yu toog kenn ki di yaa tap tap kenn ki yaa tap tap ndeke wayu mbëggeel la yaa may ah, la ndeke am na am na foo xam bu ñu fa demee ba tool sax da ay onk ala mu xaw na may na ah, sabal ay mu ah, wa ndeke du wayu daay da mbëggeel la yaa tap tap man nga kaa jàppee arab yaa tab tab gis naa paa boo xam ne moom koor gi naa no koor gi ba jeex biir këram tanaal badron ay la naa fi la naa fi moom paa bi da doon jooy ko nee lii way naan day jul dooxu naan tanaal badron waaw père doo xool li ngay tari ayca nañu dem ci page Facebook bi ah, suñu ay xarit ñoo nga fa toog eh, ñu nuyu leen eh, ñoom Silla Silla Dabaax ah ñoom Fagé Ndiaye Seck ñoom Marikan mm, ñoom Amina Fall Ndoy eh, ñoom Fatou Ndiaye Ndiaye ah, eh, ñëpp ñi rek ñëpp a ñuy seetaan eh, nu ngi bàyyi xel ci li nga xam ni moom la ñuy def ñu ngi ñuy bégee bu baax a baax mais koor gi bu ñu ci waxee dugg suñu koor ñun am na koor goo xam ne suñu bokk chrétien yi ñoom ñu ngi seen biir koor fi ñu toll nii mu nekk woor goo xam ni buy jeex mhm. ñun ci lañ koy yëg wax dëgg yàlla buy commencé war nañ ko mhm. ànd ak ñoom ci digg bi ñu ànd ceeg ñoom ndax buy jeex mhm. duñ ñu fàtt ñoom benn Aba xam nga avril bi ndeysaan ah, li naan Good Friday ñëpp dañuy xaar ngalax yeeg naan mburu yeek yooyu euh, ren nag xaw ma dina xaw a tu nu muy demee. nu muy compliqué. naan mburu seen ngalax yu daaw yi. dañ koy galaase. manqué na tuuti suukar. waa waaw waaw leen ñoo gis na ku ma toog ñu may rek ngeen ma ah dañu yox suñu xalaat de nga la ko na manqué suukar ba pare ah, ba pare ñu dafa am chocolat boo xam ne dañ ko préféré waaw waaw woo leen ñu ngeen laaj ñu ban ah, ah, ma laaj ñu ban chocolat laa bëgg maa ngi kii waaw may dégg <laughs> a sa chocolat si bari waaw ak ñoom Prosper bu daaw géej bi amul. waaw daaw géej nag la nga xam ni. sénégalais yee neex. <laughs> corona am. waaw corona ñu woor seen woor. ba desul lu dul lekk nga lax ñu wooñu ñoom ami amicalement solennellement ne ñu nag ren ñoo am yar de am teggin laa ñoo fonk seen nawle fonk seen dëkkandoo ren nag mënu ñoo indi nga lax parce que corona bi tax ay na non non lu tax ah. eh, gars yi gi jeex ñu indi ñu nga lax gi jàppoon ñépp nag poos yi rës si manqué wallaahi daaw bëri nañu ko ka ji wallaahi eh, tiga dege amul woon parce que gerte bi kii wuñ ko woon bu baax yu no affaire yi cher mu metti xam naa moo tax sax eh, daaw vitamine kii waaye nag affaire yi ah. aw am daaw aw lay fi amoon lay lay xamoo lay lay man maanaam waaw waaw ah, moo tax balaa ñuy am problème ak kii parce que yaa ngi naan aw lay aw lay so I don't understand lay mooy ah, xam naa lay mooy excuse lay du excuse rek de. Ah. lay mën na nekk tëb. tëb waaw man. waaw lay duñ ko nekk tëb. fooy tëb dem. tëb nee na lay. nee lay. déedéet lay du la neexee nga naaw lay aay mooy tëb. <laughs> Ah, nañu dem euh, le 26. Euh, Papa Diouf euh, dafay joué foofu nga xam ni moom mooy ca Kaolack ànd ceeg waa. Thierry Ngoné production donc loolu tamit yaakaar naa ne événement la maam Cheikh mbay nekk xale bu am jom xale bu am fit xale bu am ful la moo bokk ak Astou Mbaye ca Suisse tarkal maam Cheikh Mbaye nekk euh, promoteur wala producteur euh, bu nga xam ni mu ngi jàpp ci musique sénégalaise bu baax a baax a baax yaakaar naa ne bu ñu bàyyee ñu xool li nga xam ni moom mooy spot bi mm. dañuy jël euh, xale boo xam ni xale la sax wala ah. mag Ah? nañ ko ba mu na am na élément am na rubrique boo xam dina ko indi mais nañu dem xool yi la war a xew le 26 bi tamit ca Kaolack ak Papa Diouf le lead vocal de la génération consciente te ñëwaat dégg ci plateau bi ay ci appla nangaan ak li ko wër lu label Thierry Ngone production moo di présenter Pape Diouf au cœur de ville de Kaolack nangaan le 26 mars ça va être chaud à partir de 21 soirée bu amul fenn la leen Pape Diouf di defal yéen waa label Thierry Ngone production dama damay sargal jigéenu Sénégal

ayca mu ngi noonu le 26 samedi bii buñ ne sax le 26 mën naa nekk lu yàgg waaye si samedi foofu nga xam ne mooy ca cœur de ville bu Kaolack maam Cheikh Mbaye euh, mooy jëri Ngoné production ànd ak Papa Diouf le lead vocal de la génération consciente Papa ma ñu dénk bébé baas euh, Baye Mouhamed tabarkàlla loolu nag yaakaar naa ne waa Kaolack gépp a koy waajal waa Fatick waa Saloum ñëpp a ngi waaj loolu événement bu rëy la euh, mu nga te ñoom dañu mun bés mhm. mun mun sot mun mhm. mun génn nga xamante ne Pape Diouf. Mhm. du ko ndaw si réew mi you know uh, he's an icon moom tamit mm. legend la si in his own zone uh, may wax waa Kaolack yëpp génn leen uh, dem ànd ak Pape Diouf ak génération conscience comme ni mu ko waxee. Euh, Kaolack daal mu daal di neex ñu dëbb ko ba mu mokk en attendant ñun ñu dëbbaale fii. Facebook euh, ñu ngi cee laay euh, yàdd ah nee na émission bi rek lay seetaan ci télé ndax lan moo tax mooy lu neex waaye lay def ci émission bi nee na fi amul organisation amul dara lu neex waaye lay def donc laay yàdd ñu ngi lay kontaane mooy concept bi dafa mbedde surtout. Sénégal ñëpp war cee gis seen bopp ñiy kaf ñiy reetaan ak ñiy ambiance ñëpp mën cee gis seen bopp ana sama xarit ba duma dugg ba Kaolack ba génte duma ko nuyu cey nogay jaw mooy jàmbaar la lionne. la lionne. boobu ba tey. the dynamic woman. jigéen bu mun góor. Mm-hmm. jigéen boo xam ne dafa ne tak tek. Mm-hmm. jàpp njàmburam jàpp njàmburam soo ko gisee. day liggéey mm. boo ko gisee mu dugal statut day post li nga mm-hmm. xamante ne mooy liggéeyam liggéeyam këram euh, atelier am that's it euh, nogay of course euh, mooy mooy chéri Moro sama xarit bi macha allah koo xamante ne la abaa xam nga maye si xol lay jóge te nit ki fekkee abaa lu mu sol ne da koy simmi jox la ko raan kon nga xamante ne non exemple exemple may exemple bi exemple laay wax waaye yéen kañ laa jox ma ka la may ki ah, yeggal ah déedéet waay <laughs> eh, eh, eh, raan jaxase nga ma sax nag waaye Ava. Mm, summi maye bi summi euh, may euh, xol moo koy def mm-hmm, waaye mm-hmm. nogay lu mu ñaw benn mm-hmm. ñawal na ma ci beneen couleur you know loo xamante ni la euh, dafa spécial këram lu ma neex laa fay duggee njobootam everything I just have access in her mu nekk jigéen bu baax a jigéen boo xam ne ku baax la muy waajalaat lu rëy nag xam naa après muy waajalaat lu rëy lu rëy ci lu rëy lay dox te wuyu ma mm-hmm. doo ci des gannaaw benn yoon ñun chéri Moro incha ah, allah ana Nogay Jaw maa ngi lay kontaane baax eh, yow tamit dinañ la yóbbaale eh, dinañ la yóbbaale eh, dama yaakaar ni dama yaakaar ni fi toll nii ah, paas bi du ñëw ne amoo paas de ah, non kii dama kii est-ce que da nga ma jox tey voilà heure mi-temps avant ñu jël Ami Collé nañu dem macc tàngal bégee jinjeer nañ leen dem dugg ci biir waañ wi xool li fa bara baramusu di def mën naa ne ginaar ci pëndax jën ci pëndax mën naa ne poobar ci pëndax naa ne kaani ci pëndax mën naa ne moutarde ci pëndax amran ci pëndax awoga ah, ci pëndax publicité <laughs>